xalaas lañuy wax wala kawtéef inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ci yàlla la ñu jóge te ci yàlla la ñuy dellu lu ñu nangu la te it lu ñu gëm la waaye am na bakkan yuy dem yoo xam ni nekk loo xam ni mën naa ni ci coobere borom bi la dafay fekk ni ay doomi aadama ñoom ñoo ko sabab yàlla ànd ci ak ñoom ba tax na fële ca jàmm gën a sikap mbaaw mën na ni pont wu tali jaara bi la ñuy wax fare fële ca marché darkase tey ci fajar lañ fa daal di génn fekk ab ndaw bu toll ci ñaar fukki at rekk ak ñeent wala ñaar fukki at ak juróom doon wuyoo ci turu yaasin gujaa bi mu ngi àndoon nag ay moroomam ginnaaw bi mu jullee fajar ba pare dem di daani dooleem fala ay sàmba booy daal di génnee génne seeni paaka daal leeni laaj li nga xam ni moo di seeni sàkk ñu daal di bañ ñeneen ñu daal di joxe seeni saag Yacine daal di insister ne moom du joxe saagam ndax soose la ab bañkat la ca la ñu daal di jëlee paaka daat koy jam kii di Yacine mu wuy ji boroomam ca sansa xaarul ay minit mën naa ni foofu la ñàkkee bakkanam Yacine nag mu nga doon sëy fële ci mbuur li mu wut si waatoon Dakar mooy ñëw seet woon ki nga xam ni moo di yaayam ne bala moo dem dina fi xaw a am as diir rek ngir li nga xam ne wut fib liggéey mën a am ci lu mu jàppandi ngir bu demee mën a yokk koom-koomam Yacine waxtu wi daaw la doon ngénte mën naa ni deuxième femme la kon doomam ci nàmp rek la toll waaye amagul li nga xam ni moo di at ñi ñaan doomam jooju yàlla na sut ndeyam ji aw fan te it ñi ñaan lii di polis si Cap Mbao ñu ubbi ab l'enquête ngir mën a teg loxo Samba booy yooyu nga xam ni ñoo faat soxna Yacine ki barke weeru gàmmu wi